assalaamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. assalaamu aleykum nga xam ne yéen a seetaan seen émission Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag tey nag ci talaata bi dina ñëw ci programme bi ni mu gën a yaato programme bi nag ñu mu tëddee mooy Déthié Fall moom ci boppam nee na nag plan bi nga xam ne nag mooy Sénégal émergent wax na ko nee wax dëgg yàlla li nga xam ne nag moom mooy ci waa FMI wax amul dara loo xam ne wax dëgg yàlla mun nañ ko ci dindi lépp dëgg la moo taxit moom muy dëggal di wax ak Macky message boo xam ne dina ko mën a dégg mooy numéro 2 parti réew mi Alaaji Malick Gueye borom dégg déy moom ci boppam nee na wax dëgg yàlla li ñu tàmmaloon dox ci diggante jàmm Macky Sall ak Abdoulaye Wade moom ci boppam nag pare na pour dox tànk jàmm yooyu ndax ñaari côté yëpp kenn ku nekk mim na la te xam moo taxit bu ñu ko ci bàyyee jox ko ci li nga mooy médiation bi dina ko dox nga xam ne ñoo ko seetoon démb ca kaso ba nee na Mamadou Diagne Fada moom la wax ci journal ne moo génn tey nee na Fada maa dessus tax Fada décevoir ko moom ci boppam nag dina ci indi ay leeral am nañu ko seetoon kenn ki agent bu euh, vigile boo xam ne bu nekk ci kuddu la keneen ki beneen wëlërëm la waaye ñaar ñëpp ba ñu génnee journaliste laaj leen dañoo wax ne Karim Wade nee na am na lu ko décevoir ci li nga xam ne nag moom mooy euh, jikko euh, Mamadou Diagne Fada président bu Mauritanie mere na ñooy euh, wax ne Sénégal ci boppam ñoo gëm ne Mauritanie moo gën émergé Sénégal mënuñoo gëm ne Mauritanie euh, bokkul ci vingt cinq pays yu gën a pauvre moom président bi ci boppam génn na wax ne wax dëgg yàlla dëkkandoo ak dendandoo warul tax ñoom ñuy mën a siis ci li nga xam ne muy Mauritanie génn ci vingt cinq pays yi nga xam ne ñoo gën a pauvre Mauritanie ci boppam actuellement soxlatul ndimbal day fexel ci ndimbalu boppam jéem a dem loolu nag président Mauritanie bëgg na ci lool ba nee na moom ci boppam tey foofu ci Mauritanie alxames ñoom mooy seen samedi ajjuma mooy seen dimanche alxames bii ci Mauritanie kenn du fa liggéey dañ koy fête def ko fête bu mag ba naar yëpp naar Mauritanie yëpp ak Nouakchott dañu fas yéene génn pour bégte ak contentement le fait ñoom bokkoon nañ ci vingt cinq pays yooyu génn nañu mooy confirmer que Mauritanie ma ngay suqaliku ma ngay dem kon tey loolu mooy tëj suñu émission ak euh, émission Kouthia Show ñu ci ànd ak mbégte contentement di gërëm képp koo xam ne yaa ngi ñu seetaan ka nekk ci réalisation bi di tonto mag feggoog doomu ndeyam Pape Samba Thiam ñoom ñaar ñoo ko jàppandi ba émission bi a taxaw waaye nekk ca son bi tax wax ji di génn seen nopp di jaar fi nga xam ne nag mooy ca émetteur bi ba dem loolu ci liggéeyam la bu ma jàkkaarloog yaaw a Gervais moom ci boppam moom laa fi seen mu téye ñaari caméra ngarale ko en attendant xaar petit di ñëw am déet waaye jàppale ne yaaw moom mu ngi fi taxaw tey ak ñaari caméra gauche ak droite jéem a def large ak serré pour lépp mun a en tout le temps ñuy am 4 wala 5 caméra ci li nga xam ne mooy liggéeyu Kouthia Show ci ambiance ba Ndiaye jiite ko feggoo ki nga xam ne mooy Go Fall ak Abdou waaye tamit Horatio Baba Ndiaye nekk ca ak tutu ñu ngi koy gërëm di ko sant waaye tamit di am mooy dox ci rédaction Kouthia ak waa régie jokkalante bi ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, lii war a dem ci émission bi moo koy dox ba lépp daa dee yemb ñu ni tamit Kara sécurité ak Père Assane Dom mënuñu ko fàtte di fàttati lu ko suñu xarit suñu doomu ndey bi nga xam ne nag moom mooy Pape Lam photographe du troisième millénaire am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show mbokk yi ni ñuy def nag moom mooy tey dara du sedd ndax xam ngeen ne depuis démb dëkk baa ngi yëngu ci li nga xam ne mooy li Sénégal jël ndaare maanaam ca pays yi nga xam ne war a dimbali mbay eh, mbay eh, mbay mbay waaw mais booy bi man daal booy bi jaaxal na ma quoi mbay démb liggéey siwul tey xom lu ko jàpp démb mbay ñëpp mbay boo duggee kër jàmm doon na salaamaaleykum mbay boo duggee kër jàmm doon na salaamaaleykum may raa dégg naa Bill Clinton bi lay diwoo bi Boroso. man Mera jaaxal Mera Mera. ah dégg man si thème bi ñu gis si Mera jaaxal na ma bu njëkk boobu maa ngi faral ma daal mat mais dama jéem a njëkk a fekkee. mun na dalay def. mais ma tuddee Mera rek oh. booy booy ranger nga ranger ko normal dégg nga hey petit hey goyab. fii mooy place mais que. non mais Kara boobu ba léegi damay dégg muy jàmbat. ni goyab goyab goyab goyab petit lu tax amul goyab petit lu tax li nga goyab a ngi nii waaye de conteneur bi ma romb Thiès ñoo xadd Kaaba la. waa yi jaabu kooku de ay conteneur ak kii la wàccee petit ay lépp la la kii booy xoolal eh booy bu ma dëgg de bu ma dëggati de leer laa la wax non yaa ngi wax sa wax mais bu ma dëgg waaw falaa yem nag quoi koy wax ku jow eh, koy wax ku daxal daxal attends déedéet xoolal moytu ma rek kii bi apollo bi dafa dafa xewaat sa verre yu lëndëm yi dafa mel na nga man ko booy booy booy xam nga da nga daanu ay rab ak sa yu xonk nga takku ni waaye yow mbay yabaatoo dugg kër jàmbur nuyoo ba pare bi ma commencé eh, eh, xeex man ma xam ne danga may xeex boobu ba léegi laa pare si yow parce que bu nekk nii man damaa sonn loolu moo tax démb liggéey si woo léegi damaa sonn démb gaay naa nga takk say yu xonk pour grève man damaa sonn instant damay xaar ku ma yóbbu héberger France rek ma dem instant bi damay xaar ku ma héberger France ma dem parce que bu nekk nii sonn naa lu nekk ñu ma ko raxaskatu napp ñu ma koy jiiñ mbay force ñu ma koy jiiñ lu ne yaa ngi ma koy tey lépp yow la. man ndekete sa noonu li liñ naan sa sa xarit mooy mooy paas rendi la si yow la. mbay man ngay toj. non non yow dama xam ni bi may am man la woon fii laa daan nekk maag yow la woon ma ñàkk nga may sànni xeer yow yow li may sama ñàkk ju metti ñi yorutu xam nga lii dafa xam nga sànq ba tey yaa ngi dugg. lii lu mu lay lu mu lay jox. non benn xamul nga lu tax man lu mu lay jox. da nga mer da waaw kay loolu laa bëggoon ñu xam ko ñu naan ma capitaine mbay capitaine mbay capitaine u France mbay capitaine u Sénégal le 19 xanaa da ngay football xam nga loolu war ñu ko wax te lépp si yow la yaa may xeex. Guèye Teranga ak Diop Fall ñoom xam naa li ñuy wax lépp lépp lépp. am na booy boo xam ne ñëw na pour def liggéey bi nee na ma grand mën naa def liggéey bi te du ma ci boole wax ju bëri te du la def dara booy bi dinaa ko woo ba pare émission. bu ñu commencé man erreur la woon erreur la woon loolu. erreur rek la ah, ma jàng bip mu yën non saa yi bu ñu mën a mere rek quoi sama waay bi la quoi bilaay non mais mbay. waaw te du wax du wax usine ki nekk usine petit Babacar xaw ma Ibrahima. waaw waaw mu jël ma wala jéem mu si waat ma sama kii tamit yow. kon yow amu ko contrat fii. waaw waaw te du ma ko arrêté woon yaa ko arrêté woon kay laay wax. waaw li ma mel nii xam nga lii ñaaw na ku ca. lii ñaaw na noo def bu ci porte bi gis ñu. damay grève. damay gérer il faut ñu xeexal xeexal ak ñoom ndax li kii moom sonn naa. waaw biibal li nga doon neex na trop mbay. lépp di kër am nañu mbégte ak contentement bu baax euh, gërëm nañ ko mbay moom commercial di ko gërëm tamit euh, démb nag euh, dafa grévoon moo tax teewul tey dégg si waat na ci émission Kouthia Show ñu koy gërëm di ko sant waaye nag morceau bi nga xam ne nag moom mooy morceau boobu nga xam ne Aliou Guissé woy na ko jagleel ca Fouta ñu ko ci ziare moom Alaaji Cerno Sama Sama Morabi di ca war a fondé guddal fanam ak Alaaji Cerno Nourou Tall ci Sacré Cœur di ko ñaanal fan bu madame Pape Safalka nuyu nañu leen alaaji Cerno Hamdu Aw xalif bu Calaaw ñu koy ziar ak alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu kaamil dëkk ca Angle Mousse ak soxnam Adja Mam Bousso la grande couturière suñu papa suñu sëriñ alaaji bu yaatu boo xam ne ci yoonu murid la di jàngaloo xale yi xasaayid Café Touba moom la ñuy ne mooy Go Fall ma ko nag ñaanal fan bu gudd ak wér gu ñu moom tamit suñu sëriñ la ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd Mati nee na wax dëgg yàlla bëgg na sëriñ bi tamit euh, di ko sàkk euh, di ko ñaanal euh, tamit moom muy yokk ndax Mati daal xam naa nitu intérêt moom rek moo bëgg yokk moo taxit may wax sëñ Abo bu koy ñaanal nag ñaanalal noo kon ñu ngi am ak contentement bu mag ci sëñ Abo Mbàkke waaye di ziar tamit sëriñ Mbay bi muy bàyyi ci émission Kouthia Show di ñu ñaanal ñun ñëpp groupe bi yàlla yàlla nangu ñaan waaye ñun tamit ñu koy delloo ñaan fan bu gudd ak wér-gu-yaram sëñ Si Mansour bu dundee rek jàmm am ndax xam nañ ne lépp ci jàmm la koy dox ak xaritam wëlëram

Abdou Karim Mangane ñaari soxnaam Sadio Fatima yàlla guddal seen fan ak cardinal Théodore Adrien Sarr mi nga xam ne nag moo nekkoon ci jàngu bi waaye nag nekk di wéetal suñu borom ca fa nga xam ne fa nekk yàlla guddal fanam waaye tamit di nuyu maître Fatima Fall responsable politique bu PDS foofu ca Ndar ku am jom am kersa tamit nit ku yàlla baaxal yàlla ko yàlla guddal fanam ziar nañ ko bu baax ak suñu papa suñu Serigne Serigne Mansour Sarr chef religieux nekkee ay taalibe tamit euh, ñu yaakaar ci ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan bàyyi la ak sa sago tamit may fan bu gudd ak wér ndax ni mu leen ko waxee bés bu nekk ñii daal ñooy tax Sénégal ñu ne ci jàmm yàlla yàlla guddal sa fan ak bépp xilifa diine boo xam ne yaa ngi jiite réew mi moo tax ñu koy ziar ziar bu amul benn euh, app nag di am mbégte contentement ci Chérif Alassane euh, Aydara ak soxnaam Chérif Gogo Aydara foofu ca Cincinnati Fatick Ohio ñoom ñëpp nag ay nitu yàlla nañu rawatina waa Saloum alaaji Bassirou Touré xalifu Daaru Rilwan ak alaaji Serigne Touré Daaru Rilwan Serigne Bassirou Ndaw ca Daaru Salaam ñi samay xarit nañu Maha Touré ak Modou Touré Moustapha Touré ñoom ñëpp ña ngi ca Daaru Rilwan ca biir Saloum ak alaaji Muntaha Touré ñoom Xayri Touré ca Medina Salaam yàlla yàlla guddal seen fan mbokk yi ki ñuy seeti moom mooy Déthié Fall tey wax na ci journal bi naan populaire nee na lépp euh, euh, euh, madame Christophe Labarre li mu wax ci Sénégal yëpp dëgg la te am na lu des moom Déthié Fall numéro 2 euh, bu parti réew mi mooy yëkkati ay kàddu teg ko ci deru gouvernement Macky Sall Déthié Fall moom ci boppam yàgg naa dëcc ji ay kaddu Déthié ndar-ndar bu mag bi Déthié Fall borom réew mi dañ ko seeti. naa ci yéen maa ngi leen di gërëm man Déthié Fall mi nga xam ne maa topp ci Idrissa Seck euh, dama kontaan yéen mu ko Sénégal waaye dama kontaan ci li nga xam ne moom lañu doon wax est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñu yeewu suba teel ci réew mi te duñu ndékki muy premier est que deuxième est-ce que est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne dañuy xëy soo ba ngoon di wër liggéey duñ ko xam muy deuxième est-ce que troisième est-ce que est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne bu ñu reeree du ñu ndékki est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne du ñu ndékki du ñu añ du ñu reer est-ce que Macky Sall xam na ne pendant une semaine am na ñoo xam ne dañuy woor benn doogu tàndarma la ñuy dogoo ak ndox lu tax ñuy woor ñu sax xëy na parce que dañ ko suñu borom moo ko santaane wala dañu gisul lu ñu lekk ak lu ñu naan est-ce que xam nga ne ci biir dakaar am na ñoo xam ne ba tey ndoxu teen ñuy naan est-ce xam na moom Macky Sall que réew mi ci boppam am na ñoo xam ne dañuy jóge seen i kër dox ba place l'Indépendance est-ce que Macky xam na ne ci réew mi ci boppam am na ñoo xam ne bëgg nañu takk soxna te amuñu lu ñu defee lu ñu takkee soxna ba yenn njombe di leen dal est-ce que Macky Sall na ne réew mi ci boppam am na dëkk yoo xam ne boo fa demee boo bëggee brancher sa téléphone ci portable dangay ngay fay ñeent fukki dërëm pour am ko ndax courant egg si fa est-ce que Macky Sall xam na ne am na ay baykat yoo yoo xam ne ba tey ren gii jiwuñu ndax ñàkk jiw est-ce que Macky Sall xam na ne réew mi ci boppam am na ñoo xam ne balaa ñuy faju dañuy jaay seen ay jur jël lañ ko am ci jur ma daal di koy fajee ñoom seen ay njaboot est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne ñuy matu ba tey dañuy yëg ci ay saret ñu leen di yóbbu est-ce que Macky Sall xam na ne am na ay école yoo xam ne ba tey amuñu table ci suuf lañuy lal comme ku nekk ci daara est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba teel li ñuy def moom mooy fexe ba jéem dugg ci fi nga xam ne moom mooy restaurant yi jël li nga xam ne moo fa des daal di koy jël toggaat ko pour jox ko seen njaboot est-ce que Macky Sall xam na ne moom ci boppam am na ñoo xam ne dañoo nekk ci réew mi di xëy jant ba soow wër fu ne dugg fu nekk làmb fu nekk dara duñ ko daj ñibbiwaat seen kër te duñu wax seen njaboot lañ jëlee ci biti ndax xam nañu ne yoruñu dara dañuy mujj indi ay problème yoo xam ne fexe ba njaboot gi tas ku nekk delluwaat ci seen kër est-ce que njab Macky Sall xam na ne bi mu toogee ci gouvernement ba tey sëy yi tas ak kër yi toj ak ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci réew mi mu ngi gën a yokk est-ce que Macky Sall xam na ne ci biir Sénégal gii am na dëkk yoo xam ne bi fi Senghor nekkee Abdou Diouf nekk fi Abdoulaye Wade nekk fi mu Macky Sall mu toog mosu am li nga xam ne mooy robinet ndox mu neex xamuñu ko ci forage nañuy roote ci teen nañuy bëtte ba tey ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci aada ak cosaan di xale yu jigéen ñi maanaam jigéen ñi nga xam ne dañuy matu am doom mosu jaar hôpital ay kër traditionnel lañ koy defee te loolu nekk na loo xam ne warutul est-ce que Macky Sall xam na ne réew mi ci boppam dafay arrière avancé wul demul dikkul taxawul te tëddul caaxaanul dafa nekk ci tërëf tërëf mooy maanaam ku tàggoog sagom mel ne bu duñ ko doon jëmmal day mel ne koo xam ne da nga naan sàngara di tërëf ñu yaakaar ne gauche nga dem nga tërëf ñu yaakaar ne droite nga dem nga tërëf ñu yaakaar ne ginnaaw nga jëm mais doo dem ci kanam mukk ndax boo demoon ci kanam sax tey man di ñoo xam ne yaa ngi avancé waaye defoo loolu est-ce que Macky Sall ma est-ce que xam ngeen ne Macky Sall ci boppam yëgul ne est-ce que xam ngeen ne Macky sàll yëgul ne carrément bi muy wër ci dëkk tuutaan yi ak dëkk day ñëw ñi nga xam ne ñoo ko dooleel tey ba ñu jox ko kàttan ba mu gañe ndax bu ñu nekkee ci Dakar di campagne mu yoxosu nànk dem ci réew yu gàtt yi ñooñu nga xam ne ñoo ko dooleel ba daal di koy jàppale tey mu am ndam lii fàtta na leen ba ñooñu tey ku ci am portable benn yoon nga koy chargé boo ci wuyoo ñaar yoon ñetti yoon bu déchargé sa njaboot bi nekk Dakar war laa yoone xaalis du la ko mën a jox ndax amul courant bi tax nga war a jot message boobu boobu est-ce que Macky Sall xam na ne sondeel a jar na réew mi am na ñoo xam ne weeru koor ba léegi warewuñu ña woor ndax am ñu lekk am lu ñu naan est-ce que Macky Sall na université bi nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop étudiants yi ci boppam am na ñoo xam ne dañoo burle amuñu inscription dañuy naqasaale di jàng te kenn reconnaître leen fexe rek ba am bagage intellectuel pour génn ci réew mi dem est-ce que Macky Sall xam na ne docteur yaa ngi gàddaay dem ci yeneen dëkk di faje ay malade te bàyyi Sénégal est-ce que Macky Sall xam na ne ci réew mi ci boppam pour nga fajo lu mu gën gaa gàtt même bu dee siburu la war a bopp bi metti di nga ci dépenser ñaari junni est-ce que Macky Sall est-ce que Macky Sall <laughs> est-ce que yëg na ko Oh, contentement di nuyu aji si tukulóor Ali Racine euh, Wade ak euh, ñoom Nabou Louise et son mari Aïdara euh, ñu ngi nuyu tamit Nene Khadi Nene Khadija ñoom Mami Nogay euh, Papi Dieng ñu naan ko Papi ak maître Ali Fall depuis l'université extension de la part de Adjaratou Abi Thiam mu leen di nuyu Alaaji Seydou Ba taalibe Thierno Bokar Alpha ca guy Fat Mayga kooku nag suñu papa la donc wax dëgg yàlla mu ngi bàyyi xel ci ñun di ñu moo taxit ñuy wax alhamdulilah rabbil alamin lii nag buñ ko waxuloon tey kenn du ko tagal reer moo taxit à Ndeye Marème Seck madame Ba chéri Jamal Jami Ba fii ci TFM de la part de maman Diouf mami Seck et toute la famille Ba et Seck longue vie à toi chéri de la part de ton mari euh, de la part de toute l'équipe Kouthia Show ñu ngi koy souhaité moom Ndeye Marème Seck Ba chéri euh, Jamil nekk fii ci TFM de la part de maman Diouf mami Seck et toute la famille Ba longue vie à toi chéri joyeux anniversaire à Ndeye Marème Seck Ndeye Marème Seck Ba chéri Jamil Ba ci TFM de la part de son mari joyeux anniversaire à Ndeye Marème Seck madame Ba chéri Jamil Ba fii ci TFM joyeux anniversaire à Ndeye Marème Seck madame Ba chérie Jamil Ba a TFM xam naa ne lii nag mooy tey dinañ ko tegal sinon dinañ ko dóor ndax ko bu fekkee ne yaay joxe dédicace sama bas moom tey nañ ko liir lu a Wakam de la part de Koutia et toute l'équipe Show longue vie à toi madame Jonn de la part de son mari nekk fii ci TFM ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Khadijatou Sène di koo xam ne ku bëgg euh, borom këram dëgg yàlla mu ngi taxaw ci lu ne di Habib Dione ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram équipe Kouthia Show ak képp koo xam ne mu ngi nag sa xaritu euh, euh, borom kër la di Ndiaga Ndour mu ngi lay souhaité euh, joyeux anniversaire yow madame Dione chérie Habib Dione xajjatu seen yal na yàlla guddal sa fan ki nga xam ne nag moom mooy Seydina Mouhamed Bachir Dione di sa doom di seen taaw yal na yàlla guddal fanam may ko wér ak wér gu yaram ndax dëgg yàlla Habib lu ñu ko yéene ci jàmm rek doyul ndax moom baax la journée fàttaliku Serigne Fallou Mbacké fàtte 8 novembre ci CICES Serigne Djili Fata Mbacke Falilou moo koy amal ñuy xamal ne nag ñun ñëpp waa TFM invité nañu ndax euh, ki nga xam ne nag mooy suñu xarit di jëwriñ Serigne bi di Abdou Fata Mbacke ziar nañ ko bu baax di ziar tamit ki nga xam ne mooy Serigne Fallou Mbacke bi nga xam ne moom mooy euh, borom bés bi waaye ki nga xam ne nag euh, di Serigne Djili Fata Mbacke Falilou yal na yàlla guddal fanam mu ci woon ak ñoo teew ndax xam naa ne loolu dafay am solo trop trop trop di nuyu tamit Idja Diallo Kër Massar ak Dikel Kanta Daba Kanta ñoom Marème Diop madame Kanta Aminata Sy depuis passé aussi abu Baal a Ama Wan ak Mamadou Diop ma Ba Euh, ay satu euh, ak monsieur Ba Talibé Thierno Bokar euh, nekk foofu ca Fouta nuy nañ ko Marie Baal depuis Thiès de la part de Toutou fans club Kouthia foofu ca Gambia sa natu Bari ak Hasanatu Bari ay séex nañu ca Fajaakunda nuyu nañ leen mbokk yi ni ñu dem seeti mooy El Hadj Malick Guèye borom lat menge mi nga xam ne nag jàmm ji ñu wax ci diggante Macky sàll ak ab laay Ablaye de moom nag indi na ci waxtaan boo xam ne naa la bu sañoon daal ñu bàyyi ko mu nekk médiateur El Hadj ca lat menge tëgg sabar yàlla bàyyi seen loxo yàlla bu mu néew yi yàlla bu leen am béy ndax tëgg tama ak tëgg sabar war am béy ndax talmat bi tax waay digg di man di c'est le c'est le Sénégal c'est l'Afrique c'est le xuloo c'est l'association c'est le jàmm man laa ci Maliki lan mi ngi man di digg di Macky Sall Macky Sall ñi la wër ñi la wër ñi la wër ñi la wër ñi la wër ñi la wër ñi la wër wax ñu dëgg di wax ñu dëgg de man de Abdoulaye Wade sama kóllëre la man de Karim sama xarit la yow de sama kóllëre nga sama xarit nga sama raq nga sama lépp nga waaye bi nga xam ne si Abdou Khadre ko wax i waay sama sama Khadre gudd fan waaye ma ni barki dimbalaa wu si Amar ak Mawar Dim Dia Mawar Ba fi nga xam ne la amal si si inauguration sama sama journée yi waaye jàmm i waay waay ma ni man di li ma jaaxal mooy tubaab yi tubaab yi dañu ñu si ñu feex seen ñu dugg Sénégal ne faax moo tax tey li ñuy wax Macky Sall réew Sénégal moo jël vingt cinquième du dëgg du dëgg ay kàcc la ndax Macky Sall billaahi ci télé laay waxee wallaahi ci télé laay waxee télaahi ci télé laay waxee digg day bés bu mu jëloon teg ma ci wetam def ma ambassadeur ma dem ci dëkk naar yi Koweït Dubaï presse bi nga xam ne mu nekk Dubaï ñu bokkandoo daara ñu jàngandoo université ñu refaraanandoo Abdou Aziz ak i waay waay dégg nii gis nga Dubaï Koweït Qatar Barham yaa ngi ay naar rek laa fa xam Abdoulaye ma sama lan méngee maa xool télé bi dugg juma kii juma lan méngee juma Saalum i waay waay dégg nii Macky Sall déglu ma gis nga commissariat à la présidence nii surtout ba la doon et je sais de la présidence tous les Sénégalais euh, vont aller la présidence on euh, avec des petits moyens 500000 tu peux e tu peux aller la Mecque parce que les Naar ils donnent de l'argent les tubaab ils partent trop alors à demander lui c'est moi qui ai des milliards ici au Sénégal El Hadj Malick Guèye la méngee waay waay digg dee Macky Sall jël sa loxo bii daaram saqal bii dem fekk Abdoulaye di taxaw nga ne ko jubale yi nga def ko nii ma jaar si digg bi dër su ko defee jaamam naari dama lañ xam de sax leen max leen wax sal sax leen faax leen tax leen waay waay digg dee c'est le xuloo c'est le juboo c'est la paix Macky Sall y a pas de problème Abdoulaye Wade y a pas de problème moi je parle français de je parle arabe je parle anglais but you go in my in my body in, in, in my folklore ah, I'm angry to begin begin in, in my life to to to to to juboo nee wax ji ko guddal ko gàttal mooy ci juboo i eh, waay waay digg day léegi nag man tamit léegi laay xaar si Macky Sall mu jël ma def ma ambassadeur ma dem Koweït jaaxaan liggéey naar yi ñu indi sama réew war ma dem Dubaay liggéey indi naar yi ñu dugal réew war ma dem di dëkk bi nga xam ne mooy mooy Barxam nga xam ne ay milliardaires rek ñoo fa nekk te naar yi dañu ma bëgg ñoom ñoo bokk doo classe ay promotionnaire lañu ay promotionnaire Abdoul Aziz Bahran Mohamed Abdallah Aziz waay waay njëgi ne mu tax ma ne Macky jël sama numéro nga woo nga wax ma foo bëgg ñu tasee ñu toog waxtaan ma ci télévision bi rek laa mën a gisee te dama bàyyi waa PDS ñëw ci yow waaye télévision rek laa mën a gisee mu sama tëj bët ñi nga àndal dañ soxor ñi nga àndal duñu wax dëgg man maa lay wax dëgg nag ndax man alaj ma la ma ngi milliardaire bi nga xam ne dugal naa lu nekk man maa xotti télé bi jëlee ko salam dugal ma ngi dugg ba ci biir ndoxu teen amatu fa courant am na fa mën a xotti man kese kon man rek mën naa émerger loolu Sénégal ak sama milliard digle waay waay dëgg di waay bu ne boo fecc na waay waay waay waay dëgg di waay mbégte ak contentement nag di ànd ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show di wax nag dédicace ak képp koo xam ne nag yaa ngi ñuy bàyyi xel joyeux anniversaire à Oulimata euh, Tamba borom Maris nekk ca Sicap euh, Baobab de la part de Binta Diallo ak Ouley Si et tout euh, ñu ngi nekk foofu ca Maris Ouley euh, Oulimatu Tamba borom Maris ak Sikap Mbaaw nekk foofu de la part de Binta Diallo ak Ouley Si euh, dédicace à Khady Dor Dori Si Dori Dor Dori Dori Port depuis Paris non Dori Doridoor depuis euh, Paris euh, Sarcelles ñu koy nuyu ak euh, El Hadj ñoom El Hadj nag taalibe Serigne Touba bu wër la ak Bàcc Diop bàyyi Youssou Diop di nuyu tamit Modou Diop Modou Diop di chéri Adji ñu koy nuyu ak groupe Xoto nekk foofu ca Caaroy automobile ak waa Lorrain yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci bàyyi xel bi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel di nuyu tamit Adji si tukulóor Ali Racine Nabou Louise ak son mari Aydara Nene Khadija ak mami ñoom mami Nogay ñoom Papi Dieng et maître Ali Fall depuis Liberté 6 extension émission de la part de Adja Mami Thiam ak ki nga xam ne mooy Adji si mu leen di nuyu tamit bu baax Alaaji Seydou Ba taalibe Thierno Bokar Alpha ci Guy Fat Mayga ñu leen bu baax ministre Moustapha Diop microfinance yal na ko yàlla tegal leneen lu ëpp doole li nga xam ne moom la yor def ko ministre plein ministre d'état yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def di nuyu bu baax euh, journée Serigne Jéeri Waadaan le 31 octobre ci CICES euh, ci teewaayu Serigne Mama Sougou nga xam a jëmal bés bi Serigne Ahmad Sougou mu fii Thiès di nuyu tamit suñu yaay ju baax ci kër tarixi bi mu yaroo moo taxit ñëpp xam nañ ne dafa yàgg yaatal ñu koy nuyu bu moom Adja Sofi Seck ak Adja Ndey Kumba Wade nuyu nañ ko Aïssatou Niang ak madame la maire madame Kanté nuyu nañ ko Awa Sidibé Seexu Adama Sidibé Daba Sidibé Kiné Diop Khady Fall Mbène Kébé ak bébé Ahmed Wade sans oublier bébé Collé Sall Sall bébé Mam Khoudia Ibrahima Niang fils de Fatou Sidibé ca France ak Khady Ndaw ñoom Awa Fall yaayu kuna ñoom ñëpp nuyu leen di nuyu tamit Koumba Bala Mansé depuis yëmbal tali euh, marin doom ci bëgg fàllu ak El Hadj Omar di Pa Silla euh, di rax raxu Ousseynou ak Assane Silla Ale ak Iba ñoom Modou Mbacké suñu xarit nañu Khadim Fatou Mbéri Silla depuis yëmbal marin ñu ngi leen di nuyu maire Dial Badiane yaayu Sambaloobe chéri Mbës mu Serigne Fallou doomu ndeyu Ama Baldé defal jàmm may ko fan bu gudd waaye tamit di delluwaat di gërëm ñëpp mbokk yi Karim Wade dafa am ay gan yu ko seet si kenn ki ma ca union des jeunes traverse bu libéral keneen ki karimiste la ñoom ñaar dañoo ñëw tey pour seet si Karim xool nu mu toogee ca biir kaso bi nga xam ne nag moom lay ah, appartement Karim ca kaso ba mooy dalal ay ganam Karim Wade ak ñaari militants yi Pénitentiaire, ça va ça va bien alhamdulilah ah euh, où sont les invités ñu ngi ñëw. eh non garaawul. <laughs> ay dëkk bi dafa tàng pénitentiaire. oui dafa tàng. macha allah eh va kay leen nii na ngeen def. ma Eh, eh, Julde <laughs> ça va Baldi na ngeen def ça va alhamdulilah ça va yéen ngeen ci jàmm pénitentiaire soxlu dañ kumpa taxawal fële may ñu gars yi na ngeen def ça va mais fii nii la mel oh, fii nii la mel waaw ah, non non nii la mel franchement souhaité wuñ la ko man tamit souhaité mën a recevoir ci condition yi ñu ñëweeguñu sax nga ne cinq minutes. s'il vous plaît s'il vous plaît. waa am nañu elle a ses elle a ses droits. loolu mais franchement franchement affaire bi doy na waar quoi doy na waar. oui doy na waar ci milieu bu mel nii franchement ñun yéene wuñ la ko quoi kay. ak li nga def ci dëkk bi yëpp ah xoolal tey fan la mujj tey. yàlla baax na. oui yàlla baax na non c'est c'est grave c'est grave c'est grave. sinon naka foofu. ça va ça va ñu ngi góorgóorlu. alhamdulilah booy alors booy. ñu ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu. oui ak gis nga rek tëdd nelaw yeewu. tal télé seetaan émission yi. Oh. débat yi quoi yu kese. dëgg dëgg rek mooy triompher. <laughs> mais dëgg moom. <laughs> yàlla baax na et puis xoolal mboot yi xoolal mboot yi. tam samay dëkkandoo nañu. ah kii d'accord ak jinax yi tamit. ñoom ñoom ay wettali. mais léegi paxu jinax lañ duróo la wala paxu kaña la. kooku jami la. ah Jamil ah ok d' accord jinax bu saf moo may wéttali ah d' accord d' accord mais est ce que tu sais une chose euh, euh, monsieur Karim. oui est ce que yaa ngi dégg dëkk bi ni muy doxee fan yi man kii loolu ma waxul ci biti à part journaux yi aw ma dara du ma xam ci dëkk mais dara doxul. franchement dara doxul dara dara dara dara dara dara doxul. ah hmm. est ce que yëngu affaire faada bi ak ak ak ak ak RMO la. journaux yi laa koy lire. ci journaux yi laa koy lire xamatuma dara la ko. xam loolu lañ naan ko tukki ñu reer sa ginnaaw. moo tax it xeex nañu. nga fa nekkoon moo tax mu la nga fa nekkul moo tax ñuy def nekk seen ginnaaw. ci loolu gisee loolu. Ah, ah monsieur Mignane. mais loolu loolu. loolu métti na vraiment dafa non. non sa xol bee tooy na. non gis nga man maa leen di defal te yéen a ma waroon defal mais Fada bett na ma trop trop trop. xaw ma ku ma bettul mais Fada ñëw na fii nga taxaw nii fii la taxaw ma wax ak moom ne ko suma papa moo tax ma téere mais lii. vous s'il vous plaît madame may ñu tuuti rek euh, lay du ñu yàgg may ñu tuuti rek tuuti rek dañ ko namoon quoi waaw mais dañ ko namoon dañ ko namoon madame dañ ko namoon. dafa am loo xam ne. oui dafa ñaaw. Mhm. man dama naqarlu dama am ma métti. non Fadel moom bett na ma je te jure. parce que ñun ñëpp dañu amoon yaakaar ne PDS dinañu góorgóorlu ba nekk benn bloc boo xam ne kenn duñu mën a séparer mais xoolal léegi mais lii ñun xam ñu nekk ci ginnaaw yow yaa ñuy calmer rek. nan ñu dal leen dal leen mais soo ñu bàyyi ba léegi. kon nag lan lañ problème bi dëkk bi yéen a ko moom ko taali yéen a ko taali su ma génnee dama koy dama fi fekk jaax bàyyi leen léegi ma génn maa ngi sant yàlla parce que jàng naa fi alxuraan jàng fi kaamil lu bëri xam naa ko ñu ma doon seet si sax ci samay noon ñu ngi ñëw samay soppe ñu ngi ñëw yàlla baax na. sant yàlla sant yàlla sant yàlla. vraiment maa ngi yaa ngi lekk <laughs> maa ngi lekk bu baax sant yàlla bu baax vraiment di jàng euh, lu bëri ci alxuraan. Ah. di def ay fruits sax mais a ñu si bunt bi. Mhm. dañ a contrôler par ñu. dama wax tey. oui <laughs> a woon naa ay gerte caaf ak yëpp andi naa ko ak gerte xott. <laughs> yooyu yëpp andi woon naa ko vraiment vraiment booy baax ngeen. ma Fada. oui bett ma décevoir na ma vraiment je. am na lu ma métti mais dafa ñaaw ba pare nag xoolal di xeex ak parti bi. te ma xamal leen dara. oui yéen rek laa koy wax ñu bëri dañuy foog ni déggatuma olof waaye loo cax ma tekki ko. Hmm? bés bu ma génnee ñoo xam ne Karim ndekete il fallait ma jaar fii yàlla mooy def jaar loolu foog ñu test ko loolu foog ñu test ko parce que loolu man man mënu ma ko mënu ma ko ay ci leen bëgguma ngeen yëgam ma ndeysaan lay bañ a dégg. loolu leen ma cax oh, ma tekki ko. Oh, oh, ci xel non saa yi foog nga foog ñu cax test ko test ko euh. gàtt ñuul attan ton <laughs> gàtt ñuul attan ton Macky non tamit dafa gàtt attan euh, attan ah. ton Sénégal su ma neexee ne Macky waaw pneu bu amul ci oto du daw. Macky bu jiitalu réew mi du dox benn yow. benn néeg. Hmm? néeg bu ndaw bu def téeméeri nit lu muy tekki. almet. non mais xam na ko ko lu koy fay. <laughs> loolu xam na ko xam na ko. xonqe maa xonqe. nga ni. xonk maa xonk. xonk loqati tomate yi. faamu laqatu ci bisaab bu xonk. <laughs> cuqali cuqali léegi xam nga lu ma bëgg. ngeen toog mais léegi léegi mën nga si mën nga sikkar. comme sikkaru Baay Faal affaire yooyu. loolu gën a tuuti. xarit boo xam ne. jax la de. mbaxane heure bu ma ko yëkkatee dara. boisson <laughs> boisson wuy ma xam nga lu ma neex dama bëgg ñu ñu cax caxu taasu mhm. ay taas yu gerte dama bëgg yëngel euh, kaso bi ñu xam ne euh, euh, maa ngi sant yàlla. Ah. waaw. xool. kon parce que yow mosoo bëgg lu lëndëm ah. waa kon dañ daan wax nay leer nay leer Karim bu gët lëndëm nay leer saay. waaw léegi. waaw léegi moo waxul benn. Mhm. maa doon sàkki laalo ànd ak mbëri ndaw mbëri i saa dem fa jëli jóob. Mhm. cuqul cuqul cuqul ba mu dem nga caqal cuqul ba mu dem coppati ne ko ci pays mu saxaar xëy lu neex nga ni. waaw man ma ne coppet ah ne ko ci nga cuqul mu cuqul nga jàppati mu jàppati xëcc muus lekk lu tàng naan lu sedd teraleen ci def ci lekk lu tàng naan lu sedd teraleen ci jaxaleen ci neex tuqul tuqul tuqul makk ci mari demal bale saal ba bale naa loo fa fekk benn mandarin cim yaa bëgg lekk bi nga doon ali patalam ali fiis ali rajo ku ma yéene reex ma yéene la añ su ma fan dee dégg ni kenn ma yee kat tukkul tukkul ma ka cee fan silmaxas jaan yàlla yorug dundam silmaxas jaan yàlla yorug dundam waaw waaw silmaxas jaan yàlla yorug dundam waaw yàlla yorug dundam

clip boobu ngeen seetaan nag euh, Corso Indo moo ko def loolu mooy wane ne culture Indo dugg na Sénégal kon félicitation dinañ ko gën a ñëw boobu di wax nag joyeux anniversaire à Ndeye Marème Seck madame Ba chérie Diabel Ba euh, de la part de maman Diouf mami Seck et toute la famille Ba longue vie à toi chérie sa borom kër moo la ko wax et de Kouthia Show Habib Dione chérim di xajatu seen ñu koy koy bàyyi Mouhamed Bachir Dione depuis cité Asegna Wakam ñëpp a ngi koy souhaité anniversaire di ko diine Fata Mbacke yàlla nañ egg ak waaye tamit di gërëm képp koo xam ne nag da teew ci journée culturelle sëñ Mama Sougou Wadane yi nga xam ne nag sëñ Jéeri Wadane ñu ko abale 31 octobre ci CICES ci teewaay sëñ Mama Sougou Wadane yëpp ñu ngi ci ñaan ñu egg ci ak fekk ko jàmm yëpp nekk ci jàmm di am mbégte contentement ci ala euh, ajaratu Adja Sofi Seck nekk foofu nag ca Géejawaay yaay Adama Sidibé ak Awa Sidibé ñu ngi koy ñaanal fan bu a ñoom nogoy ñëpp ñu ngi am mbégte contentement rawatina Papi Dieng et maître Ali Fall depuis 2006 extension Pape Cheikh Diallo ñu ngi koy souhaité tamit kenn dala jàmm de la part de oration nee wax dëgg yàlla yóbbante àq la te bu ko defalee tamit day bañ suba mu xool ko du mel ne euh, yóbbante bi defoon na ko te bugg lekk àq kon Pape Cheikh Diallo et toute la famille Diallo ñu ngi leen di ñaanal kenn dala jàmm yendoo jàmm ndax am la boo xam ne la yàlla na ko yàlla defal jàmm aar ko tax taxawaayam ba mu gën a ku baax la yàlla na ko jàmm de la part de Horatio et toute l'équipe de Kouthia Show moom Pape Cheikh ñu koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram mbokk yi Gofal ak Abdou Neng seen mbokk yi nekk Mauritanie ñoom lañu ñu may émission bi pour ñoom seen bopp ñu xam ne ne tey dara du sedd fii ni ñuy def nag moom mooy dañuy génn lii yëpp dégagé ko ñëw defal leen culture Mauritanie président Mauritanie ak premier ministre ba ak ministre de l'économie et des ñoom ñooy taxaw tey pour sargal population Mauritanie xamal leen nekk Mauritanie nag génn na ci dëkk yi nga xam ne dañooy sàkku ndippal léegi Mauritanie ci boppam mun naa demal boppam te ba ñu wékk kenn Abdoul Aziz président Mauritanie maa koy xamal nag ne ko wax dëgg yàlla président ñu ngi lay wax ne dañoo yàkkamti ñëw sa dëkk nga invité ñu ñu ñëw sa dëkk neexal ko ndax yow suñu xarit nga yaa sa soxna ak ñëpp ak képp koo xam ne yaa ngi Mauritanie spécial Mauritanie ci émergence kon gars yi bu dara sedd ay rahmatullahi taala wa barakatuhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Allahu merci ah, euh, ñu ngi garab ñëpp ah, moom moo par nekk premier ministre nekk affaire euh, euh, comme comme économie et sociale économie ñu ngi remercier ñëpp waa Mauritanie ah, fonds international FMI moo wax ne que Mauritanie mu ngi suqaliku macha allah wallaahi Mauritanie mu ngi suqaliku macha allah wallaahi Mauritanie mu ngi émerger wallaahi Mauritanie mu ngi commencé na développer premier ministre ak ministre affaires économie ak dugal a xaalis wet ci xaalis incha allah rabbi Mauritanie dina dem kanam لكن زعل فعالة تجعلنا أن نطلع بريم ميس بروجرامنا لا جعتنا سلام مرحبا سعيد بكذب مرحبا ما شاء الله شكرا أنه المعتني راح تحرمي والله والله والله والله حالي ذلك مع الحضور الجاري والله والله شو راح يمكن تتورى والله والله راح تلقى لك حجور عبد العزيز مرحبا مرحبا والله والله عبد العزيز ما سكن ولا على ترك البريمير مينستر والنبي حتى والنبي حتى انا كالوسامه كالفله ولكن خالصكم كم وسالك الوداد الخيل وعلي والصري فالخدان وسروسي طلعت الخينا بدوختي والحلف اللي تبخور سيب القيس فرح نكل اورو فرح نكل دولار فرح دخل ين فرح دخل ليفر فرح دخل سيفة وسالك الولي خلي من المصرون فايق الولكي léegi léegi nag dañ leen di wan Mauritanie fii ak ñetti weer nan lay mel ah macha allah gratte-ciel gratte-ciel dem eh, ca kaw. Eh, xoolee nga Mauritanie nii laa bëgg mu mel. def ko nii la Mauritanie di mel fii ak ñetti weer. dolli dolli beneen. nii la Mauritanie ak tunnel. Allah nii la Mauritanie eh, nar a mel. Allah ah, gis nga Mauritanie nii la nar a mel fii ak ñaari at. kon Mauritanie incha allah bu soobee yàlla dina xoolal xoolal xoolal lii amul fenn fu dul ah, wala achatal léegi Mauritanie benn bu kenn demati Sénégal di jaay ay forox caay neex boole araam